Bassirou Diomaye Faye. Et vous voyez euh, sur les images de Sabassi Faye qui est juste à, à côté, voilà, avec euh, le chef du protocole de la présidence Mamadou Ndiaye ñii ñooy dem jëli président bi indi ko ngir mu ñëw prêter serment euh, mu ngoog chef protocole bi di Mamadou Ndiaye mi ngi leen di expliquer mbir yi ni ñu koy doxalee kon nag ñi ngi dem jëli ki nga xamante ne moo président Bassirou Diomaye Faye xoolal image bi euh, si ginnaaw bi lan ngay gis gaynde ak photo Bassirou Diomaye Faye xam nga emblème mu Sénégal gaynde la ma et dans un instant le président Bassirou Diomaye et ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui vont faire entrer avant celle du cinquième président de la République du Sénégal. waaw gan yi ñooy njëkk a dem dugg ci salle bi installé wu ba pare gis nañu ne euh, daal maam yenn ci membre de conseil constitutionnel génn nañu ngi dem nag jëli euh, le euh, nouveau président de la République léegi nag gan yi bu ñu duggee ci salle ba installé wu si ngeen di gis nag le président Bassirou Diomaye fay Faye Ousmane Sonko mooy dugg si noonu ci ci salle bi. Euh, gunge gan yi ba ñu toog su ko defee nag euh, Bassirou Diomaye fay ànd ak euh, membre conseil constitutionnel ngir dem nag toog ci place ba ñu ko gardeel kon ngeen gis noonu ne njiitu réew yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ak représentant yenn réew yi nga xam ñoom ñoo ñëw euh, ñoom ñoo dugg si noonu euh, ñooy dem toog euh, si seen place après le président Ousmane Sonko tamit toog ci place am léegi nag waa conseil constitutionnel yi nga xam ñëw ngi nii génn ngir jëli Bassirou Diomaye Faye ñooy ànd ak moom comme ça mu dugg nag toog ci place bi ñu ko gardeel Ibrahima. voilà Rama place bi président Bassirou Diomaye Faye di toog jàkkaarloo ak euh, juge yi suñ ko kàddu gi pour mu prêter serment après muy loolu alors ñaari soxna yaa ngoog sal baa ngi excellence euh, délégation des pays amis li ñuy xaar mi ngi voilà du yàgg. mooy nag premier président bu am ñaari jabar ci Sénégal loolu ah, aussi. Ah. mais kan mooy première moo gën a. bon loolu moom euh, mënuma wax. Euh, mooy président bu gën a nekk ndaw. mooy président bu njëkk am. ñaari soxna. c'est un passé un responsable c'est et on looy si am ñaari soxna Ibrahima. bon loolu yëpp euh, moom. le président Diomaye moo gën a nekk responsable Ibrahima bul daw bi. du yàgg mu génn ñu ngi koy xaar. dama ne loolu yëpp ci tradition Sénégal la am benn wala ñaar wala ñett ñetti soxna ku mu saf euh, nga defee ko noonu kon nag euh, dans un instant en direct sur la RTS euh, l'entrée du cinquième président de la République du Sénégal. vous avez vu le président de la Mauritanie, euh, Mohamed Ould Ghazouani, Adama Barrow de la Gambie, Amaro Embalo Sissoko de la Guinée-Bissau. Et vous avez vu ce public très enthousiaste. Voilà, euh, Osman Sonko, ses épouses, euh, mais également Bassirou Diomaye également, qui est là. Et l'ovation de la salle à chaque fois que l'on cite le nom de Bassirou Diomaye Voilà. <laughs> Il y aura une grosse ambiance à l'exposition à chaque fois que l'on montre l'image de Ousmane Sonko. Vous allez voir euh, dans un instant arriver le président de la République du Sénégal monsieur Bassirou Diomaye Faye euh, et xew-xew yi am ci biir euh, armée bi. am na solo. kon nag. Euh, parce que Ibrahima dama am yaakaar ne bu président bi duggee rek cérémonie bi dafay commencer. naa la moo tax ñuy ñu jëlee devant. présenter gan yeeg yooyu laata président bi di dugg si. Mangook su paree ci lim bi. après si la ñuy jàll si cérémonie officielle bi. Ibrahima nag di coupe Mamadou Doumbia bi vraiment neex nañu trop macha allah wax dëgg yàlla. waaw mais xam nga fii ñi fi teew yëpp ñi fi dëkkandoo la ñu wax dëgg yàlla. ñi fi teew yëpp dañ fi am place xam nga Cap Vert mënoo wax tudd Sénégal te doo tudd Cap Vert. dëgg la Gambie wax euh, waxati noppi. Guinée bi ngay wax nii Guinée Bissau Mali benn la. benn la colonisation moo ñu indi lay jafe-jafe Sierra Leone bii ngay gis sax ay ay suñu ay mbokk pël yu bëri ñu ngi fa ay mbokk Sénégal Burkina Faso kenn waxatu ko si bëri si jën ñuy consommé Sénégal lay jógee ak yeneen i yeneen yeneen yeneen yoo xamante ne. mais Ibrahima am na yu bëri d'Ivoire kenn waxatu ko soo waxee Côte d'Ivoire wax Sénégal si lu ñu bokk si. sénégalais yi fa nekk bëri lool soo demee Treichville wala yeneen dëkk yi maanaam Sénégal ci boppam moo nekk dëkk boo xam ne sénégalais la ñu xëj. monsieur Omar Aliou Touré président de la commission de la CEDEAO et monsieur Abdoulaye Diop président de la commission de l'UEMOA. Je enfin à signaler la présence parmi nous du corps diplomatique accrédité au Sénégal de nombreux invités de marque. y compris des membres du secteur privé, société civile et d'autres catégories socio-professionnelles. Je vous remercie de votre aimable attention. ndax nag. am na lu bëri du ñu lëkkale ak euh, réew pa Nigéria. waaye ñu jàpp na rek euh, membre conseil constitutionnel yu génnoon Ibrahima ñoo ngi dem jëli euh, président bi du yàgg. mu génn dem ci salle bi nga xamante ne rek foofu lañ koy xaar. xam nga Nigéria CEDEAO la bokk ñoom dañoo nekk li nga xamante mooy puissance ci Afrique. bokk na ci dëkk yi ñu gën a ràññee ci Afrique moo tax ñoom suñ fi teewee tey day gën a wane li ma doon wax rek mooy dooleel Sénégal te loolu dafa am solo maanaam fexe ba wane ni Sénégal mën na dajale Afrique te loolu la ñu nekk di wane nii parce que Nigéria su teewee Côte d'Ivoire teew mhm. laa na desati ni teew Mali teew Guinée les deux Guinée Guinée Bissau Guinée Conakry dara desatul wax dëgg yàlla eh, li wane na ne eh, waa Sierra Leone teew macha allah eh, li wane na Sénégal mën na dajale réewu Afrique yëpp ci réew ci réew mi ñu nekk di Sénégal te it Sénégal mat nañu mat ngoo xamante ne rek mën nañu comme ni ñu ko wane organiser ay élection yu transparente apaisé ndax c'est un pays démocratique kenn mënu ci kenn loolu moom Ibrahima kenn dootu ko lam lam mbokku Gambie ministre des affaires mm-hmm. étrangères mm-hmm. bu Gambie ñu ngi fii le président Adama Barrow xam nga ñu si bëre ñu si bëre euh, bëgg nañu fekkee bés bi lee parce que mm-hmm. bés bu màgg la c'est un jour mémorable mooy li mu doon wax sànq rek c'est un jour qui sera marqué à jamais dans l'histoire du Sénégal oui, dans l'histoire politique du Sénégal et quand le Sénégal gère la transition démocratique Ibrahima nag ko ñu nekk ci salle bi ça se passe moins de bruit Ça se passe comme si c'était ailleurs dans un autre pays africain. Parce que le Sénégal est une référence. Le Sénégal, c'est le pays référence en matière d'autres pays ont suivi Cap Vert léegi bokk na si dëkk ñu gën a ràññee si mbirum démocratie kon nag euh, président Nigéria moo agsi di dugg ci salle bi ànd ak euh, protocole présidence de la République du am na solo loolu ñu koy souhaiter la bienvenue ñëwam am na solo ñëw njiitu réew yëpp am nañu solo ñi nga xam ne ñëwuñu sax gis nañu ne yónnee nañu fa seen ndaw ndax par exemple Rwanda ñëwul waaye teewal nañu ko fi. xam nga loolu dafa nekk lu nga xam te ne rek lu am solo la Sénégal ci boppam moom moo ubbeeku ci ci réew yëpp. xajal euh, réew yëpp kenn su nekk am nga fi am nga fi place surtout jamono yu mel nii nga xamante ni euh, dañuy wane lool ouverture bu mag euh, ngir nag ñëpp ñëw teew Euh, fekkee li nga xam ne du am solo la ci histoire politique bu Sénégal du yàgg euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina génn toog ci salle bi euh, ngir nag jàkkaarloog waa conseil constitutionnel ngir waat naka nara yore réew mi. le président Tinubu bu Nigéria waaw phrase boobu le président Bassirou Diomaye Faye phrase am bi ñuy xaar ak am solo. mooy phrase waat bi. Ah. phrase bu am solo la. Matar Diop euh, ah. vice-président de la Banque euh, mondiale et vous avez mm-hmm. vu tout le président Bola Tinubu du Nigeria qui a fait son entrée tout à l'heure. Euh, dans un instant donc, vous allez assister en direct sur la RTS. mbokk yi à l'investiture du président Bassirou Diomaye Dakhar Faye.